أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وآله أجمعين بقي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Sëriñ Abdul Xaadir maa ngi leen nuyu di nuyu mbooleem mbokk yi fi teew di dundal këti néegi yàlla yi di taxawee liggéey bu am solo boo xam ne bokk na ci yi ëpp yaakaar ci diggante jàmm ak seen borom ñu war a waxtaan nag noonu nga ko waxe ci worma ji jàkk am ak teggeen yi nga xam ne soxla nañ ko ko loolu it di lu mat a bàyyi xel ndax jàkka moo ne demee mooy barab boo xam ne sunu boroom moo santaane ñu taxawal ko fii buyuutin adina allahu an turfaa wa yudkara fi hasmu barab boo xam ne yàlla moo ne nañ ko defar noppi ne yëfuma wa anna al masajida lillah waxit ne it moo ko gënal ci béréb yi xabbul bilaadi ila llahi masajiduha wax ni it mooy bérébu gaañu baax ñëpp al masjidu baytu kulli taqi loolu ay junj la yu wane solo si jàkk am ba tax mu am war moo juñ war a sàmm amit ay teggin yoo xam ne war nañ ko koo jox ndax solo si mu am yàlla fonk ko lool rëyal ko lool yitteel ko lool bokk na ci li koy firndeel yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bi mu nekkee màkk mënu faa def jàkk ndax amu fa genn kilifteef ay bi mu gàddaayee laata muy àgg madina naal na jàkk ci yoon masjidu quba ba mu ñëwee madina it la mu njëkk a def mooy taxawal fa taxawal fa yàlla néeg muy masjid jàkkam ju tedd ji nga xam ne mooy ahadul xaramay yàlla it digge ci ku tabax jàkka tuyaaba ju rëy bokk ci yi ñuy xame it ak mbaax am na xadis bi la wax ne am na juróom-ñaari ñoo xam ne bu yomal xiyaamee sunu boroom dañ leen teral ci jamono joo xam ne ñëppay soxla ker tuddoon na ci wa rajulun qalbuhu muallaqun bil masajid koo xam ne yàlla dala bëgguloo jàkk waxtu wu ne sa xel di ci nekk doo fa jóg waxoon nit ne yow yontu ay sala na nga bégal ñi nga xam ne dañoo fonk jàkk lu mu lëndëm lëndëm bu jàkk wootee danañ ko wuy bu yomal xeemee ñëpp soxla leer danañ am leer bu nekk seen kanam di leen wan yoon wañu jaar jëmal jànn kon jàkka lu ama am solo la mbokk yi ci ab jullit mu war ko bàyyi xel moo tax ñu jàpp ne waxtaane waruma ji mu am waxtaan wu war a amal njariñ ñëpp la dañ koy dugal ci ñaari mbir nag ay mbir yoo xam ne dañoo diglee ku koy def ci jàkka ak mbir yoo xam ne dañuy tere ku ko fi def waruma jag teggi ni du génn ñaar yooyu ginnaaw buñ xamee ne néegub yàlla yàlla santaane ñu tabax ko nee na it suuf si kaw suuf yi dëkk yi fi nekk barab bu fi nekk dëkk bu ma doon jàkk yaa ko fa gënal kon kuy wër yàlla fa ko gën a jege mooy nga dem jàkk ci néegam këram yàlla digle ñuy dundal jàkka ko yi mu santaane jàkka dañ koy dundal dundal jàkka nag ñaari maanaa la am amal jàkka ci barab bu mu amut ak fu jàkka nekk nga bokk ca ña fay joxe ndigal yi ñi julli si jàkk bu jàkka wootee ñu wuy si ñooñu ay dundalkati jàkka la waaye ki tabax jàkka it fu jàkka amut ñu aajowoo ko fa it dundalkatu jàkka ñëpp dugg nañ ci innama yaamuru masajidallah man amana billahi wal yawmil axir kon loolu bokk na ci li ñuy digle ci jàkka ñu war di ko wut barab bu nekk ñu dafa def jàkka loolu gis ngeen Maulana Cheikh Ahmadul Xadim radiyallahu anhu bokk na ci li gën a fës ci ay taxawaayam barab bu mu wàcc rek la mu fay njëkkal lijjanti mooy wut fi jàkk ba ci ba mu nekkee ci biir noonam ay bant lay samp bu waxtu jotee mu nodd julli moom kenn radiyallahu anhu ci réew mi it gis ngeen li ko yàlla terale barab bu mu mas a romb julli jot wala naafila moo xam julli farata wala julli naafila mu wàcc julli ëpp ca barab yooyu tey ay jàkka la ak i jumaa kon yàlla santaane ñu tabax ko ci fépp nag jàkka fu ne mën nañ ko faa def waaye bokk na ci liñ ci digle it ci war ba ju am mooy jàkka dañ ko war di setal bu amee ba noppi la ci jiitu ay faratam mooy di ko setal ñëw na ci xadis ne yonent bi saa saa moo digle an tuttaxadal masajid fi duur wa an tutahhar wa tutayyab bokk na ci war ma jàkk am dañ ko war di setal ba mu set wécc moo tax mbokk yi sasoo setal jàkka yi ñu ngi ci liggéey bu rëy bu am solo boo xam ne yonent bi yonent bi alayhi salaam moo ko santaane wax ne jàkka néegub yàlla kon daa war di set saa su ne waaye dañ ko war del di di xeeñal xet gu neexi ma waral ñu di ko pomp gët ak di fi def cuuraay loolu màggaayu jàkka ji moo tax mu yeyoo ko loolu nag day wane ne lu safaanaw loolu loolu dañ ko fi tere kon daa war di set kenn wuru fi andi loo xam ne day sabab taxu jàkk yonent bi islaam nee na wan nañ ma tuyaa bay sama xeet ba ci tilim ju nit génnee ci jàkk ku fekk loo xam ne wërte na ci jàkk nga jëlee ko ko tuyaa ba jure ji ci nekk yonent bi nee na boroomam war na ko wax ne wa tifli ci jàkka xati ala ñaaw téef la woo xam ne la koy far mooy nga jële ko ko kon ñu bàyyi xel ne kon néegub yàlla ku fay dugg kon booy ñëw war ngaa bàyyi xel yaa ngi dëgmal barab boo xam ne lenn lu koy taqal wërta bàyyi ko ci yow lenn luy tax mu yor xet gu naqari wërta bàyyi ko ci yow moo tax booy ñëw da ngay waaj ba sax ñi yor xet yu naqari lañ leen tere jàkk sallallahu alayhi wa sallam noonu na booba laaj la joxe daan ne garab gi ku ko lekk nang nang ñu fi bàyyil suñu jàkk bu ñu wootee jàkk ji bul bul wuyu si nga xam ne xet gu naqari la goo xam ne boo dikkee da ngay lor waa jàkka ji ci xet gu naqari gi kon bu fi jaar yow loolu dañ cee dégg ne jullit war nay moytu di lënkaloo xet goo xam ne day tax bu duggee ci jàkka ji loru wala mu lore ndax loru mooy tabbi na foo xam ne bokk na ci ñi taqal jàkk te jàkk dañ jàkk dañ ko war a laabal dañ ko war a teeyal bokk na ci waruma ji mu amit néegub yàlla waxtu wone dañ fiy wooteel yàlla moo tax jàkka lu ay jàkka jege-jege saa bu waxtu jotee jàkka june nodd fa sunna mu akkade la di farata gu ne bokk na ci waruma ci mu amit kenn du def saa boobu dem nu la neex rek deme jàkk jóge sa liggéeyukaay rek ak sa yére yu tax ñu nodd nga daal di wuti jàkk ji déedéet jàkk dañ koy waajal ku jëm ci jàkk daa war a waaj yaa bani aadam xudu zinatakum inda kulli masjid jàkk lañ ko mag ñu baax ñi dañ doon wut sax ay yére yoo xam ne ngir julli jàkk ja boo yére bariwut waaye dañuy xaraw bu moo xam ne bu julli jotee ñu sol ko dem jàkk ja buñ del delloo si moon ngir lan taaral gi waaj bi ñu war a waajal dem jàkk ñu di ko bàyyi xel bokk na ci waru maam bu caa génn barab boo xam da ngay ñëw rek ne saraax dañ lay sant booy dugg am noo duggi sa sa tànkum day joor ngay jiital mooy njëkk a dugg ci jàkka ji boo duggee nga tudd fàttaliku sa boroom ñaan bismillah allahumma aftah lii abwaaba rahmatik loolu lu ñu santaane la kuy dugg jàkka ku ne nga jiital sa tànkum day joor wax bismillahi wax loolu door tab ci biir booy génn it noonu danga ko tàggu wax allahumma inni as'aluka min fadlik ginnaaw boo jiitalee sa tànkub càmm jàkka nday joor a fay jëkk moo fay mujj loolu ci warma ji maam ak tegg ni ñu koy bàyyi xel ci la bokk bokk na ci liñ bëgg ci jàkka it ngir warma wutal jigéen ñi bunt wutal jigéen ñi bunt boo xam ne ñoom fa la ñuy jaare ñëw na ci xadis boo xam ne ibnu omar moo ko nettali radiallahu anhuma wax ne bis yonent bi islam daa joxoñ benn bunt ci bunti jàkkay madina daa ne day law tarakna hada al baaba linnisa daa ne bunt bii day buñ ko fi bàyyiloon jigéen ñi day maanaam kon mel na ne bëggoon na góor ñi buñ fa jaareet nañ bàyyi bunt boobu jigéen ñi di fa dugg danañ dégg ci loolu ne kon jigéen ñi dee su leen tere jàkka ji waaye dañ leen di sant rek ñu mel na lislaam santaane ñu mel ko bu ñu julli si jàkk bu ñu takk ay takkaay bu ñu xëy na ay gëtt ak yu demee noonu nañ mel ci ak colit ñu lislaam santaane jullit bu jigéen buy génn mel ne imaam Naafi nee na bunt boobee ba ibnu Omar déggee yonent bu wax loola ba nim génne àdduna jaaraatul ca bunt ba dégg rek ne yonent islam ne bunt bii de suñ ko fi bàyyiloon jigéen ñi loolu dañ cee dégg ne kon jàkka danañ fa soxla bunt boo xam ne dañ koy bàyyil jigéen ñi bu ko defee ñu mën cee duggee ko génne duñ jaxasoo góor ñi di mën a wuy si woote bi yàlla bi di ko joxe ci anam goo xam ne duñ ci dajeeg lu ñuy tere wala ñu di ko mu leen di gaar loolu bokk na ci li ñu war a bàyyi xel ci jàkka jàkka it bokk na ci ay waru maam dee su fa toogee nu la neex am nos la am buñ war di bàyyi xel kenn dugg jàkka rek jàppee comme comme sam néeg sëriñ Moussa Ka waxoon na ne jumaa ni rowul ki néeg ba léegi sunna mabbu ko jumaa bu ñu jàppee atam ne rek ne boobu bu yàggee ñu mabbu sunna mabbu ko ndax la ñuy def ci jumaa ak la ñuy def ci néeg bokkul moo tax nos bi bokk na ci kenn du dugg ci jàkka di booxante kenn du jëm ci jàkka di daw man ngaa waaxu nag waaxum góor ba nga xam ne ful la ngay dox waaye bul daw yonentu moo ne woon alayhi salaam ku ci dégg teg na dugg ci jàkka na nga dox maanaam bul daw ànd aku dal ndax daw dal dafa dàq daw dafa dàqonteeg waqaar ak sakina te dañ ko soxla ci koy julli mu ne boo agsee xab bi ci julli gi loo fi fekkee nga julli ko luñ la rawee bu imaam sëlmale nga fay waaye kenn du wax ne liqaam nañ nga nga nga nga daal di xelu wuti jàkka ak say xeexit boo agsee doo dal doo teewlu boo agsee it nag ci jàkka kon bul booxante ci bunt bul jot bul daf foo jot toog dañuy wax ne jàkka sàppe su njëkk si moo gën ci jàkka ji kon nit ki ñëw jiitu fi daa war a ñëw fi gën fi gën ci sàppe mooy ginnaaw ilimaan fi ilimaan di taxaw ko ci ginnaawam fu tolloo moom ci ginnaawam foofu moo gën ci moo gën ci sàppe yi ak la fa tàmbalee jëm ndeyjoor ba ba muy fees la fa tàmbalee jëm càmmoñ ba muy fees nga xam ne foofu it war nañoo xam bokk na ci war ma jàkkam ak i tegginam kenn waru fee sos sàppe te du ne sàppe su njëkk si fees na dell ba kenn xajutu ci loolu buñ ko doon bàyyi xel danañ noppal ñi ne ci jàkka yi di dimbale nit ñi ba mu ci julli si nga xam ne sàppe su njëkk la ñuy nos ba mu fees ñu sos sàppe ñaareel waaye noonu ñu waxit sàppe saa buñ koy sosit du tàmbalee ndeyjoor tàmbalee càmmoñ ci digg bi lañ koy sosit mu jëm ndeyjoor jëm càmmoñ loolu nu am nos la ba noppi nag nit ñi buñ dëkkee dañuy sa solo waxuñu sàppe natt bi fi jaaroon nit ñi ku ne dànd sama nangam am natt la waaye jàkk wër te demee noonu dañoo bëgg nit ñi sa solo daan nañ liqaam ba noppi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di dugg ci sàpp yi di soññ nañu ñu gën a jege naa leen na ngeen sësaloo bu leen bàyyi ab yaraax saytaane dafi dugg di leen jaxase xam ne da dañuy bëgg kon nit ñi ci sàpp si nañ sësaloo xataay bi wàññu dara aw yiw rek la léegi nag buñ buñ defee noonu ba sàpp su njëkk si fees ci la ñuy door a sos seneen sàppe ku séen ab yaraax-yaraax it dem dem fatt ko aw yiw la loolu it lu ñu santaane la nga xam ne bu fekkonte ne ñu ngi sàmm loolu ñi yor jàkka yi di nos danañ noppul lool ndax jéggat du am ndax boo jéggatee doo am foo jëm ndax jéggat ci njuum tey la bokk nit di ko def yonent alayhi salaam ci kaw minbar bi séen na benn waaye bu jéggat daa dagg xutba bi ne ko eh jekkil yaa ngi lor nit ñi waaye li koy waral bokk na ci ñàkk nos ni ñuy jekkee fooy jot toog sàppe yi ci ginnaaw te kanam nga am ay barab yu nit mën a toog tooguñu loolu dana jur ay nit di jéggat ndax séen nga ci kanam foo mën a jaar kon buñ jëloon teg yi ni jàkk dëgg-dëgg ci ñu ko waxee su boobaa sàppe su njëkk mooy fees ñu door a sos seneen sàppe sàppe su njëkk it nag mbokk yi ku ci mën a bokk xéewal la goo xam ne bu la ko bu la ci kenn jiitu bu la ci kenn jiitu waaye nag waxuñ yéex a ñëw ba noppi nag di buuxante sàppe si bu ñuy wax loolu mooy nga teel a ñëw ci waxtu woo xam ne faaw nga bokk ci sàppe su njëkk yonent bi nee na sallallahu alayhi wa sallam bu nit ñi xamoon li nekk ci nodd ak ñë jullee ci sàpp su njëkk buñ ko doon tegee bant it dañ koy tegee bant waaye kon kenn du ko bàyyee moroom yiw wi nekk ci nodd ak yiw wi nekk ci jullee ci sàpp su njëkk nee na bu ko nit ñi xamoon kenn du ko bàyyee moroom dañ koy tegoo bant bu ngeen fa dajee ku ak seendoo te muy benn barab kenn du ko nangu bàyyi morom dañuy nañ ko tegoo bant bant bi dal ci kawam kooku toog waaye kenn du taamu jox ko sa morom di toog loolu day wane ne lu am solo la bokk na ci teggin ak war ma jàkk amit ku fa dugg li ngay njëkk def muy nuyu yàlla sa borom nuyu jàkk la ñuy wax waaye nuyu borom jàkka ji lañ ci jiw nga julli ñaar rak bu fekkee da nga ñëw ci jàkka ji fekk nga ànd ak laam te waxtu bi nga ñëw di waxtu naafila dagan te nga fas yéenee toog ci jàkk bi waxuñ koy jaar doom kooka sant nañ ko balaa jekki da julli ñaar rakk yoo xam ne bu ko fàtte woon ba jekki it du faat day jóg def ko ñaar rakk yooyu lu ñu santaane la ci noonu ida daxala ahadukum masjida fala yajlis xatta yusalliya rakaatayn waaye jàkk yi bokk na ci warumaam ak tegginam kenn du fa nekk wax ne da ngay maanu ci lépp saa boo gisee lu dul yoon ci jàkk bu ci noppi waaye nag na nga ci wax bil xikmati wal mawisatil xasana waaye nag saa boo gisee lu dul noonu jàkk dañ ca war a wax yonent bi sallallahu alayhi wasallam mi suñu royukaay toog na ci jàkk benn waay ñëw julli julli gu doy waar maanaam daal dugal ñëw daal koy nuyu mu ne ko demal nga julliwaat julli woo mu def ba mu ñetti yoon mu ne ko nii laa man mu woo ko ne ko nag kaay ma jàngal la daa koy wax julli dal gi mu war a àndal yamoo gi ci war a am ba tax julli gi nekk julli gu jaar yoon nga xam ne loolu war nañ caa xame kon ne moom gis na kuy def lu dul noona waaye da ko woo laabiire ko jàngal ko ba man loolu it bokk na ci ku ne ci jàkka ña fay ñëw umpule ak war may jàkka mbaa ñuy def lu dul noona bu leen seetaan wax ne samay néew ci moom dama koy bàyyi rek jàmbur la déedéet laa biire ko ndax ad diinu an nasiha benn waaye néew na jàkka rek ak toog yonente ko loolu tey julli ñaar rakka ndax li ñu wax léegi xam ne taxiyatul masjid li ñu santaane la waxtu wii waxtu wu naa fi dagan la waaye di ñëw toog te am nga yaakaar ci mayeekum jàpp kon santoon nañ ko mu julli ñaar rakk balaa toog kooku ne ko sëñ bi da ngaa fàtte ñaar rakk yi xanaa bu ko defee mu jóg julli ko loolu kon di digle ak di tere bokk na ci yi ñu bëgg foofu benn waaye dugg na ci jàkka ji daa jàpp aksi testin mi weextaal ndox mi laalu ko yonent ne ko saxay kaay mu ne mu ne ko demal nga rafetal sa njàpp mi xoolal sa tànk yi lépp doyut gis nga kon al amru bil maaruf wa nahyu anil munkar lu ñu taamu ci jàkka la bëgg ñu koy def bëgg nañ it jigéen ñi mën nañ cee teew waaye nag ànd ak i sartam jigéen moom jullee ci këram moo gën ci moom waaye kenn du ko tere jàkk ji nag su melee ni ko yàlla sant yu bare bari it sañ nañ ko ci jàkka nit mën naa ne ci jàkk te jàpput doonte gënut waaye ku ne woon ci jàkk ba am njàppum toj it bu amee ngant mënut a jóg jàpp it duñ ko wax ne génnal jàkk ji ndax jàppoo dees na fa boole ay julli it sana tey bu timis jotoon mu xiin xiin ba nga xam ne nii am nañ yaa wóoruwuñ mu taw taw boo xam ne bu ëllëgee bu gee jotee boo wutuut julli si dana jafe dañuy maye ñu julli timis ak gee waaye loolu jàkka lañ ko maye waaye mayewuñ ko ci kër yu mel noonu yëpp di wor ma ci jàkk am ba tax ku fa nekk ñu may la ay woyofal yoo xam ne duñ ko may koo xam ne nekkoo fa loolu lépp yi war a bàyyi xel jàkk la mbokk yi bëgg nañ it nit ku tukki ñibbisi bala ngaa dugg sa kër fekkee fi nga nekk koñ bi jàkkaa ngi fi nga xam ne fa nga julli waxtu juróom bala ngaa dugg sa kër na nga jaar ci jàkka ji julli ñaar rakka bu dee waxtu naa fi la daga door a àgg sa kër nga xam ne kon day mel ne bi nga ñibbisi yàlla war ngaa ñëw tàmbalee ko sant yàlla ci ñibbisi gi jaaral ci jàkka ji julli fa ñaar rakka door dugg sa kër loolu bokk na ci saxaaba yi daan def lu ñu sopp la ci ku tukki ba ñibbisi bëgg nañ it ab sëy buñ koy fas ñu fase ko ci jàkka ndax yaakaar barke waaye nag bàyyi xel teggee ni war a àndal bu dee ay waxtaan da cay am ay gërëmanteeg yooyu moom dafa ko ci bitti jàkk ji moo gën waaye jëmmi pas-pas bi ñaan dénkaane mën nañ ko defe ci biir jàkk ji ndax loolu ci mbirum jàkk la bokk jàkk it nag manis na fa atte manis na fa séddalee séddale alal jamono ibnu salaam masaan jihaadi bay séddale màng mi léeg-léeg ibnu salaam toog ci biir jàkk ji di ko séddale loolu mbokk yi lenn la ci yi nga xam ne dañoo digle ku ko def ci jàkk waaye nag bari na yuñ tere it nag ku ko def jàkk yoo xam ne dañ ko war a moytu kon ku ne ci jàkk yor jàkk war nga bàyyi xel yooyu ci sa bopp ak ñu fay ñëw ndax du ne du defuma ko man waaye nag am na ñuy ñëw di ko def te nga gis leen maandu ca loolu du maandu ndax da ngaa war a digle war a tere jàkka kenn du ko tabax fu ñu ko soxlawul maanaam jàkka ngi fi mbooloo mi ne ci koñ bi ñëpp xaj nañ ci jàkka ji tabax ca koñ booba jeneen jàkka dëgënu ndax jàkka dafa ñëw ngir boole nit ñi bu fekkee nag genn jàkka xaj nañ fi ñoom waa koñ bi nga def fi ñaari jàkka tàggale nga mbooloo mi day nekk masjidu dërar jàkka yu mel noonu dañ ko war toj ndax ñëwut ngir tàgg boole nit ñi waaye dafa ñëw ngir xàjjale nit ñi kon gis nga du càggee ne fu neex waaye def ko deesu ko def ci alali jàmbur maanaam fu jàmbur moom deesu ko def ci mbedd ñii rek jékki-jékki dagg mbedd mi daal tabax jàkk waaye ne moom da nga bëgg lu baax allahuma barab boo xam ne dañoo dagg mbedd yi nag di ko def ay jaayukaay boobaa nag nit ñi soxla jàkk te amuñ fuñ ko def danañ ko sañ waaye li war a am dal bu amee jàkk aw yoon pour jaar la ngir ram romb la kenn du ko def am magasin kenn du ko def lenn luy gàllankoor nit ñi kenn du ko def jàkk loolu it bokk na ci li ma tax xam ndax war may jàkk daa bokk ci waru ji maam wari su ko def fu jaaduwul bokk na ci waru maam it kenn du ko tabaxee alal ju taq alal ju tilim alali asaka ak sarax dañu wax ne taq-taqi nit ñee moo tax jàkk kenn du ko tabaxee asaka asaka kenn du ko def ci jàkk ab sarax kenn du ko def jàkk kees yi ñu def ci yenn jàkka yi bind ci li wa ci laay bu dee ilimaan yaa koy def ak noddukat yi ñoom sañ nañu yelwaan buñ ko aajowoo waaye jàkk deesu ko yelwaan jàkk dañ koy tabax bi izzati nafs waaye deesu ko tabax ci toroxlu ak woyof loolu bokk na ci warma ji mu am ba tax deesu ko tabaxee alali asaka niñ koy tabaxee it daa am yoon loolu it lu ma ta bàyyi xel la jàkk kenn du ko def lu dul ne day nekk murabba nga xam ne yaatuwaay ak guddaay duñ sore waaye wut wut rond léeg-léeg gis ñu topp ay plan yu rafet ba koñu jàkka it dañ du nekk lu koñ kaare ñaare boo ko defee ku jullee foofa doo ju buy sujjóot doo jublu xibla loolu mat a bàyyi xel moo tax jàkk yi waruñ ko bàyyee arche yi ñoom xam nañu rafet waaye jànguñ sariya nag kon dañ la wax ne na mel nii rëddal leen ñu tabax waaye bu leen bàyyi ñu rëddal seen bopp rawatina biir gi nga xam ne mooy espace bi ñu jullee moom daa war a koñ carré mbaa mu jege mu rabban la war doon mbaa mu jege nga xam ne waxuñ sàppe yi gàtt te gudd loolu santaane wuñ ko yaa lay gis jàkk joo xam ne mën naa doon téeméeri sàppe waaye sàppe si lu mat fukki nit du ci xaj lu mel noonu noonu loolu it jàkk taamuñ mel noonu dañoo bëgg mu nekk mu rabba nga xam ne guddaay bi ak yaatuwaay bi duñu soree lool ku seetlu barab bi ñu nekk da nga gis loolu boo xamul sax nga jàpp ne yaatuwaay bi guddaay bi ñoo tolloo noonu lañ ko bëggee loolu it bokk na ci warma jim am nga xam ne bokkut ak nu du ne rek nu neex waaye la koy tabax bat bàyyi xel la jàkk kenn du fi dugal ngànnaay kenn du fi bocc ngànnaay boo yoree say ngànnaay boo duggee jàkk làq ko foo xam ne kenn du ko gis yén bi salaam moo tere bocci jaasi ci biir jàkka wax ne ku ci romb ci yéen ci jàkk fekk mu yor jaaseem na téye ci ñawka la ba ñi nga xam ne nitu jàmm la waaye gàddu jaasi nii muy leer la nga indi nit boo jubee ab ragal mën naa daw dañ ko loolu it nag du teggee ci jàkk ñu bàyyi ko xel kon daal bu fa kenn dugal ngànnaay daal ci gàtt bi mu gën a mu gën a noppale jàkka dee su fa yaxantu kenn du fa jaayee ko jënd kenn du fa yéene lu réer yéen islaam waxoon na ne ku ngeen gis muy jaay ci jàkk nee leen ko yàlla bu mu am tono yàlla na nga per ku ngeen gis muy yéene lu réer ci jàkk nee leen ko yàlla bu mu feeñ jàkk tabaxuñ ko ngir yooyu loolu it ma tabaay xel mbokk yi ci jàkk yi nga xam ne lu xew ci koñ bi ci lañ ko yéene xar mu réer ak lu waay kii rek day def jàkk ja ñu taal rajo jàkk yi di yéene di tàgge ku faa toog yépp loolu na nga xam ne du lu gën mën naa am ne koy def lañ jublu lu baax la waaye ngir nga jariñu mooy da ngay def lu ñu digal jàkka dañ cee tere di ci yëgli bàyyi xel loolu moom soororam bi ak rajo bi julli ak jàngale lañ fay def ke dafa def leneen kenn du fa dugg ak xet gu naqari noonu ma ko waxee sànq waxoon na ne ku lekk soble wala mu lekk laaj bul jege suñu jàkk ndax nee na malaaka yi dañuy loru ci yi nga xam ne doomu aadama dañ ciy loru te jàkk malaaka yi dañuy ne ci jàkk yi jàkk dee su fa tifli dee su fa ñandu xeet yooyu yëpp kenn du ko def ku dugg jàkk yorol sa musuwaar boo sojee booy ñenn ngay tifli ngi tifli ci sa musuwaar dugal sa jiba waaye bu tifli sànni waxoon ne albusaaqu fi lmasjidi xatia wa kafaratuha dafnuha loolu bañ koy wax mooy boo tiflee suul ko mooy ba jàkka nekkee ruum waaye jàkk yi nga xam ne du yooyu moom kon kenn waru fee dugg ak i taq kenn it waru fee dugg ak i dàll donte da ngay dégg ñu wax ne ay dàll julle waa jullee ko dagan na bu ànd ak sobe waaye bañ koy wax ci yooyu it mooy nga ne ci ak mbooy koo xam ne boo sumee see daal dégg mën na la jam wala yu mel noonu waaye barab bu defar mu rafet bale ko ba mu set nga mu leer ne boo fa jaar ak daal taqal ko loolu du teggin di fa jaar ak daal kenn du fa yëkkati kàddu ci lu dul waare ak xam jàngale xam-xam ak julli kàddu yi ñu fay wax rek ndànk la war moom loolu di bàyyi ko xel moo tax waxtaan du ñuy def ci biir jàkka li ñuy wax léegi bu ñuy fas ab sëy mën nañoo fas sëy bi ci biir jàkka ji waaye waxtaane ja des nag bu dee kàddu yi day jëb jim kaw nañ génn jàkka ji moo ci gën ba ci jàng alquranul karim li muy baax baax yow yaa yaa bëgg tuyaaba sañ ngaa toog di jàng alquran bul toog di yëkk di wax ca kaw yonentu islaam nekk na ci jàkkaam di yantikaaf dégg ay saxaaba yu ne ci biir jàkk yi di jàng alquran di bérél ci kaw waaye daa wuññi rëdd bi mu def ci fi mu nekk daa di wax ne yéen ñëpp da ngeen di deyal ak seen borom bu ci kenn lor moromam kenn ku ne na wax ndànk ndax bu dee wax ca kaw moromam du benn da nga koy tashwis moo tax man ngaa nekk jàkk di julli keneen nekk fa di julli booy jàng doonte da ngay béral waxal ndànk loo xam ne yow da nga koy dégg loolu dañ cee dégg ne kon lu wax baax baax ci biir jàkk di ko def di wax ca kaw ci waxtu woo xam ne jaamu yàlla sa moroom a nga def geneen jaamu yàlla bu ko lool bu ñuy julli nag dañu ànd julli gi bu ñuy jàngale it nag ab darsa la ndax jàkka daara la boobaa dañuy toog déglu loolu taxul ñuy wax waaye ñu toog di waxtaan seen waxtaanu bopp wala kuy jaamu yàlla jaamu yàlla ak boppam moo tax ñuy wax bokk na ci atta yi jàkk amit ak ci tegginam bu imaam xasee ñëw jiite farata ba noppi kenn dootu fa julli julli mbooloo ndax loolu mën naa jur li tax jàkk jóg mooy boole nit ñi gis bu ñu nangoo ñaari ilimaan am fa jàkk mën naa am ñaari ñu julli dikk am ñoo xam ne dañu tànn seen ilimaan bàyyi ba ilimaan julli bu noppi ñu door a ñëw moo tax bu imam ñëwee julli ba sëlmal ku ñëwati da ngay julli yow kenn soo bëggee julli mbooloo da ngeen di génn jàkka ji loolu nag jàkka yi ci ne ci kaw yoon bokku ci jàkka yi nga xam ne amul imam ratib bi sax nga xam ne moom bu julli jotee ñu mu fekk rek mën nañu julli jàkka jooju mbooloo yu bari mën nañu faa julli waaye bokku na jàkka ji ci dëkk am ilimaan bu waxtu jotee mu ñëw jiite leen loolu bu ko xas julli ilimaan bu xasee julli kenn dootu fa julleeti julli mbooloo jàkka it kenn waru fa andi xet gu naqari te jublu ko masala ni ku bëgg a ngelawal te yëg ko na gaaw jóg génn jàkka ji duy teggi mu tëdd ci jàkka ji di fi bacc ngelaw loo xam ne bu noppee ni lor xet andi xet jàkka ji lor ña fa nekk lor malaaka yi fay teew kenn du fa jéggat ay sàppe wanaal sànq Ibrahima salaam wax na ne ijlis xat asayta ci kaw min baram la nekk seen waay ju jéggat di ñëw mu ne ko toogal fi ko toll yaa ngi lor nii ku sangu farata war du dugg jàkk bu la fekkee ci jàkk yi da nga war a génn ci saasa loolu ci tëjee moo tax xam-xam bu ñu xasee noddu ngir julli farata yow mi nekk ci biir jàkk ji bul génn te julli woo farata ji loolu bokk na ci war ma ci mu am waaw nag yaa ngi ci biir jàkka ji ak loolu fi ma doon andi nodd naa ngir julli bul génn jàkka ji te julli woo loolu nag boo koy wax fu mu ne fii dañuy jàpp ne kenn du ko def waaye nit ñaa ngi koy def nag am ñoo xam dañuy yàkkamte ba bu ñu noddee rek daal di gaaw julli génn déedéet waroo julli yow ndax jàkk ji daa am imam waxtu jotee lay julli jàkk de su ko tëj ci lu dul lor li jaadu woon tey dañuy delloo buntu bi rek ku bëgg a julli boo dëkkee rek ubbi daal di julli tëjaat bi àddina yàqoo jubati gi bari moo waral ñu di ko tëj di wut ay garde waaye moo tax baaxoo na nag tëj gi am garde boo xam ne ku dikk bëgg a julli mu ubbil la bàyyi la xel nga julli génnaat waaye lay lañ fekk foo xam ne ngay dox ba ci yoon fekk jàkk joxe dañ koy tëj rab nga xool xool doo gis kenn nga bëgg a julli doo mu am foo jullee loolu it bokk ci tegin jàkk ndax néegub yàlla boo xam ne jaamub yàlla bi fi jëm si wari su koo xaj kon bu ngant amee ba ñu di ko tëjit dana baax ñu wut koy garde koo xam ne boo dikkee bëgg a julli mën laa ubbi jàkka kenn du fa julli it ci lu ngant moo doon cosaan kenn du fa julli it ci lu ngant ab julli kay lañu war a am léegi nag taaxa geek taxan yu bari léegi ci ay yooyu lañuy jullee jàppoo dem dugg ci jàkk ja dañ ko sib dañoo bëgg jàkk boo fa jëmee bala ngaa dem nga jàpp waaye dañuy sib nga tàbbe ci jàkk jàppoo loolu nag bokkut ak bokkut ak nga dugg jàkka ji sam jàpp toj sañ ma sañ ngaa wéy toog bu julli jotee nga dem jàppe waaye nag xam ne fi mu ni jàppoo jóg dugg ci jàkk ji loolu moom dañ koo sib kooku maa bañ a def moo gën sobe tàbbal ko ci jàkk dafa xaram ak lu mën a xew wët naka noonu tuur fa ndox ak ci wetam maanaam biir jàkka ji ni mu amee war ma miirub jàkka ji noonu la mel maanaam kenn du ne biir jàkka ji nga génn ci miir bi taxaw fa daal di def la ngay def loolu dañ koy tere ñu bàyyi ko xel baax a baax kenn du fa rey ay matt kenn du fa rey ay teeñ yooyu yëpp dañ koy tere imam Malik da ko dal sib nga xam ne bu fekkee daa am ay yu mel ne yu fi lore buñ leen mën a upp bañ génn moo gën waaye rey leen fa rawatina bu dee yu am deret te deret jooju day nekk sobe moo tax dañ koy tere ci jàkk war mooy jàkk laajul loolu jàkk diis fu jàngale ay gone waaw gone yu ndaw yoo xam ne moom luñ bëgg a def man ko def jàkk ji ñaare boo gisee jàkk ñu ko def sax la ngay njëkk seetlu mooy tapp yee kenn du fa mën a toog day am xet day tilim te loolu du teggin moo tax nañ wut ci bitti fu ñu leen di jàngale waaye biir jàkk ji moom julli la ak jàngali mag waaye gone yi ndaw yi toll ñu jàng alxuraan moom daje leen ci biir jàkk ji du dañ koy tere lekk ci biir jàkka bu dul lu lu yem lekk goo xam ne nii du am xet te du fa bàyyi jeexit waaw manis na ko def jàkk waaye bu dul loolu moom lekk fi lekk goo xam ne ku dugg jàkka ji mu xeeñ xonu ñam woowa wala faaw jeexit ji des jàkk ji tilimal ko wala mu taqal ko loolu it da bokk ci li ñuy tere ci jàkk mbokk yi ndax sàmm wor maam sàmm wor maam jàkka yi nag ñu bàyyi xel ne lépp lu fa xas tàbbi moog jàkka ji ñoo bokk àtte waqfu la jàkka jee ko moom maanaam tey bu ñu newoon bay soppi jàkka ji dindi buntu yi ngeen di ko yeesal buntu yi yooyu ci génnee ci jeneen jàkk la war a dem waaye warut dem ci kër tapp yii bu xasee dugg jàkka jàkkaa ko moom bu ñu koy yeesal ci jàkka lay dem bépp bagage ci gàttal bu jàkka moom ñu ko jariñoo ci jàkka ji bu ñu demee ba di ko soppaxan di soppiku te mën a am njariñ ba tey dañ ko yóbbu ci jàkk waaye duñ ko yóbbu feneen jàkka ko moom wala su ko dugal feneen kenn du luyee dara lu bokk jàkk li jàkk moom kenn du ko jaay dee su ko luyee dee su ko jaay dee su ko luyee war maam mu àgg foofu loolu daal mbokk yi lenn la ci liñ mën a wax ci jataay bi ci war ma ci jàkk am kon képp koo xam ne yaa ngi saytu jàkk war ngaa bàyyi xel yi ak yeneen yi mel nii nga xam ne booy gëstu da nga ko gis nga xam ne néegub yàlla nga yor li nga yor lu ko gën a rëy ci barab bi nga nekk amu fi kon jox ko war ma fexeel ba ñi ñi ñëwit jox ko war ma yi kon du ne yow rek yaay joxe war ma waaye dañ laa sant nga jox ko war ma waaye ñi fi ñëwit nga fexe ba sàmm war ma moo tax ku ci ñëw nu nga ko te ni war a ñëwee nga laa biire ko donte nag na nga ko def bil xikma wala maa ngi waxuñu rek gëddaate ak wax lu ñaaw benn waaye ñëw na jàkk yóbbu salaam doon ko xamul rek toog nii ñu waare bu yàgg rek mu soxla tuur ndox daal di jóg dem ci benn koñ tuur ndox saxaaba yi nar ko yuuxu mu ne bàyyi leen ñu bàyyi ko mu àggale mu ñëw yóbbu salaam boo ko ne ko gis nga fii jàkk la dañu fiy julli jàng alxuraan yooyu waaye lii taxu koo jóg dégg nga bu ko defati bu daa ne waaw jërëjëf daal di génn ne yàlla yàlla nag ma yërëm maag Muhammad te bul yërëm keneen isaan ñu te islam ne ko ne ko ne ko xat xatal nga lu yaatu waaye gis nga ni mu jëflanteeg moom moo sedd xolom mu jàpp ne ñeneen ñi dañoo baaxut moo tax xekk mu am njëriñ loolu daal lañ doon jottal di jégalu nag sëñ Abdul Xaadir asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.